بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي جولي دي مبوكي طالبي غنا بون سانتي سون بروم سبحانه وتعالى جولتي انتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي سانتات بو باخ سون ياغاتي الك شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول دي نيانال شيخ سيدي منتخا مباكي ابن شيخ محمد البصير سون بروم ياغ فلول تويرالكو اك اي ركام اك مبولم تايب شيخ خادم اك مبول امور سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam sallam di ñaan suñu borom dolli jamm ak tawfiq ak ngeenel ci mboolem ummatu sayyidina Muhammad alaihi wasallam bepp ci barke alquranul karim barke khasaayil suñu tuwaay comme ni nga xam non nga won sank rek ak sama na tangu suñu Ablaye job de Rasanaat ñi ngi fi ci Touba France ci bis bi nga xam ne la waa Ahlu Jawharatul def fi ci Paris ci ndegalu Cheikh Amsatou mbake mom Cheikh Souhaïbou waye nak ci ndegalu Cheikh mohammed muntaha ibnu Cheikh basir bi fi nekkal Serigne Touba mu mel ne kon ñoo ngi toog ak kenn ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi jóge tubaa itali muy sëriñ Makhtar sëy mu nekk ci Touba Toscana ci dëkk bi ñuy wax Livorno ci Italie mooy mu ànd délégation bi nga xam ne ñoo jóge Touba Italie te Serigne Sam Diop jiite leen mu teew si fii ci Touba France ci bis bi wax dëgg yàlla muy ndaw waaye muy borom xam-xam di tamit gëstukat wax dëgg yàlla di ku xam-xam ñor ak liggéey sëriñ bi moom lan toogal nii xam naa ne tomb yi ñu bëgg waxtaane moom ci bisu tay bi rek mooy Serigne Touba ak alxuraan waaye tamit Serigne Touba ak sant ndax bisu tey bii naam bisu xasida la waaye bisu sant la waaye bisu alxuraan la kon moo tax ko ñu toog ak Serigne maxtaar Seye kon dañ ko jox kàddu gi rek mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel Touba Monde bi TV waaye lëkkaloo ak rajo Xassida online Touba Monde bi bu nuyoo pare incha allah ñu doog a dugg nag ci biir waxtaan wi sëñ Makhtar bismillah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 وصلوات الله والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين sëriñ Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay nuyu bu baax di la dellu ziara di ñaanal sunu kilifa gi nga xam ne moo fi nekk muy sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacke sunu borom yàggal ko fi lool balim naa la liggéeyal cheikhul khadim radhiyallahu anhu ardaaw ci tool bi mu def ko ni ko bëggee def ko ci sagom itam ni ko waxee kon melni na ne ñu ngi ci fi ci France ci bis bi nga xam moy bisub magalu xasida yi te ñi wa Maraxib taxawal ko ahlu Maraxib ci ndigalu am Amsatu kon sëñ Mbacke ñi ngi lay sante bu baaxa baax kon di xaar question yi rek inshallah allah baax na jërëjëf. jërëjëf sëñ Makhtar mu melni ne am solo bi nga nuyoo ñu lay fay nuyu baax nuyu di la sante di la gërëm. mu mel ne kon tomb bi ñu bëgg a njëkk waxtaan rek mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak alxuraan te ku wax sëñ Tuubaa wax alxuraan du la jaaxal ndax li mu wax wér na nee na suñ borom moom moo ko moom loo alxuraan waaye te moo ko ko doon loo yaa na loolu yaat na lool ci ay ab yaatam ci biir xasaayid di bokk na tamit ndigal yi nga xam ne tamit gën naa fees lool ci ay ndigal yoo xam ne moo ko bind boppam mooy joxañ goo xam ne joxañ na ko muridi alxuraan mën nañ cee tudd rek lu mel ne kullu muridin bi su fa yu dim tilawatul qur'an li ghayri sikrin qad rusim waye bok na lim wax ne man seelu qadim sama ganjar muy sama wurus budé man mënees na ko waxee noonu mooy hadiis yonent saa salaam ak alquran don alquran la jital lim wax ne wal hadiisu wal adab la jamu fidatun wala jamu sahab ya loolu lotim batay tey da fay firndel na kon seigne touba kon très soram kon gis nga lim jëk cité alxuraan la njëkk euh, kon dafay mel ne kon suñu mataar na jox kàddu gi rek xëy na yow nga indi ñu kon ay leeral wala ay ndon lental yoo xam ne dafay jëm ci diggante seexul xadim ak alxuraanu karim ndax mel na ne xasaay yi nga xam ne sax moom moo ñu dajale fii tey lépp mu ngi ko jukkee ci biir alxuraanu kariim ci xes de yëpp xam naa lool sax ñëw ci kanam incha allah bu neex ci biir jataay bi waaye kon noo jox kàddu gi rek nga gën ñoo leeralal kon diggante Serigne Touba sëñ Matar. jërëjëf sëñ Mbacke wax nga wax ju am solo waaye tamit laaj nga laaj bu am solo muy Serigne ak alxuraan Serigne moom mooy alxuraan juy dox di sotti mooy sëñ Touba bi kulli fànnin nag ci côté boo ko mën a xool rek moom mooy alxuraan moom sëñ Touba Serigne Touba day jëmm joo xam ni cofeel gi mu amoon ci alxuraan fi ko alxuraan tolloon. bo xolé do gis ni kenn alquran toll na foofu léppam alquran la won talol dana gëna fën ci jotaay bi bi ñëwé yit xam nga ni amna fu mu fekkon jàng mi amna fu mu fekkon alquran waye nak amna fu mu ko jëlé amna fu mu ko fu mu ko yóbbu lolu di liggéey bu am solo bo xamné def nako ci biir alquran li nga xamantene bi ne cheikh lu ni wa keur Cheikhul Khadim lolu lañuy mokal ci alquran ak diko bind ci alquran tamit sédlu wuñ ko ci kanen loolu na li ko may moy bëgg gim mu bëggoon alxuraan jox ko léppam ba sun borom faye ko yoy yooyu dana gëna feeñ ci waxtani bu baaxa baax jëm joji mal wax muy Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu ardaahu sopuk alquranam mo waralon ñun li ñi am mom amuko muy xarit ak lal boy tëdd yu mel non yëpp mom amuko won woon kan moo doonoon xaritam alquranul karim lalam kum ca daan teg alxuraanul karim daw ci tedd mom de dedet alquran la dan jël dan ko ci tek mara ci bir lolu serigne bi waxna sax ni ci bir alquran ngir bëgg gi mu ko bëgg rek waxna ci ayab yaad yu bari bok na ci ayab yaad yoyo waxna ni kitab rabbiya li Khalilun wa Habib yuhibbuni bi hubbihi kullu labib téereb sama borom bi de tamay alquran sama xarit la sama soppe la sax ku am xel ci la may bëggee ku am xel ku ne ci alxuraan la may bëgg ngir bëgg ma ko bëgg mooy la mu waxoon ca jas bul xuluub rek lii moo wax ne yéen lii an tabib bihi yuhibbuni labib yatlubu xayra laqami waaw alxuraan doy na ma sëkk mooy sama médecin tey te moom laa bëgg ku am xel ku ne ci alxuraan nga may bëggee li waral mu ne ku am xel ku ne ci alxuraan nga may bëggee it xam nga daa am fu mu fekkoon alxuraan am fu ko yóbbu bi ñëwee fekk na nit ñi daan mokkal alxuraan daan ko jàng waaye na damay daa xawoon a bërim fo bari ay ayaat yoo xam ne itam daanañ ko jël di ko tuddee alxuraan te loola daawu demee noona naa la cay jox dara rek mel ni hayhaata hayhaata gi nga xam ne moom moo nekk ci suuratul muminuun muy hayhaata hayhaata lima tuwaaduna mag ñi bu njëkk ñoom leen ko daan wooyee mooy tudduma la tudduma la <laughs> nga xam ne ay xeeti folo yoo xam ne yooyu bi sëñ bi ñëwee yëpp da ko fay jëlee xam ne lii lu sell la kon bëgg yi dama nekkoon feeñ na bu baaxa baax dama la wax ne la itam moom amutoon lal bu muy tëdd ndax alxuraan dila daan jël teg ko ci kawub lal toog fi mu toog di ko tagg di ko gañ dara wax naan yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xablu kunta tabibi yow téere bi yàlla bii de yaay sama soppe yaay sama xarit te itam yaay sama médecin itam waaw dégg na sax ci wax ko nag anta izzi wa ma wa mafxari wa jaahi waaw yaay sama kom yaay sama tedd nga yaay sama euh, daraja yoo laay ndemoo kon loolu day wane ne kooku fi mu toogoon alxuraan defe naa ne kenn tegu ko fa waaye nag boo gisee loolu lépp na li ko gën a waral tamit bokk na ca mooy bëggim bëggoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax téere bi wàcc gi ñu ko wàcc Seydina Muhammad rek ma tax mu gën koo bëgg gën koo fopp itam sopp itam moo tax danaa wax naa kitaabu rasulillahi wirdi waraaxati wa urdi bihi man saana kulli bi téere bi yonente yàlla bi kat mooy sama wird mooy sama dog mooy sama noflaay itam moom laay gërëm loo it sama borom itam boo xoolee loolu it loolu da gis ne leer na lool wirdam alxuraan la woon ndax yeggoon na waxuma la ci jàng alxuraan sax waaye yeggoon na daaw taqali ko kaamilu alxuraan fu mu masaan a dem itam bu ne faa cëpp moo xam muy fu neex moo xam muy fu bari nattu ba yegg ci loo xam ne sax day mel ne bakkan ko mën a muñ alxuraan lay jiital mën naa la cee siteel bi nga xamantene ne ne rek dugal nañ ko ci neeg bobu yi nga xamni neeg bobu rek la ma sa gisee sëñ bi wax wax yu wax wax yu doy war ne bu ma ko neeg bobu rek damay bëgg xare ji waye yeen bi sallallahu alayhi wasallam mom momay defalat neeg bobu néeg mu ci duggé nee ñaari saar yi gëna gudd ci alquran mom la tari moy suratu baqara ak suratu ali imran ñaar yoy la fa ñëk tari kon mom gis nga ni kon fu ma saana dugg rek alquran la daan jital mom la daan jital mom la daan def muy leppam alquran tamit moom moo doonoon diineem moo doonoon diineem dara wax naan diini kitaabul Moustapha laa xayru sama diine mooy téereb yàlla bii nga xam ne moo lañu wàcc Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa xayru ëma leneen wa yantahi ila siwaaya dayru loola waral nag lor ci keneen lay dem waaye du ñëw ci man dara wax naan kitaabu ko diini wa huwa xilli wa muunisi hadaani bii la hëdi wa nafsi bii zakka ca muqadamatul am daal lu yéemee ngi noonu sa téere bii day mooy sama diine moom mooy sama xarit mooy sama wéttal tam xam nga nit koo gis muy dem ku ne rek dana am xarit dana am wéttal dana lu muy bégee waaye moom nee na alxuraan moo doonoon wéttalam moo doonoon xaritam tey nee na ci la ko yàlla sunu borom jubale tey nee na itam ci la taskiya bakkanam taq tax yi nekkoon ci bakkan bakkan yëpp ndem amoon na ko sa lay wax ci alxuraan la ko taskiya ba mu set wicc wa nafsi bihi zakka la wax moo tax alxuraan la jàppoon def ko muy léppam

dafa jàpp ci yetu ki nga xamante ne bii moo koy womat noonu yi nga xam noonu la cay jàppe rek man noonu laa jàpp ci alquran dara wax naa itam maasikan bil kitaabi daa iqaama li salawaatil xamsi bi istiqaama man damay jàpp alquran téereb yàlla bi waaye yëmma ci waaye di taxawal julli juróom yi itam du ma yem ci alquran rek waaye damay taxaw julli juróom di ko jàng taxaw di ko naafila itam kooku mooy jàpp alquran dëgg dëgg dëgg yeggoon ci jàpp alxuraan suñu borom ji du ko remplacer ak dara mbir lu mu for for for moom nee na du ko remplacer ak alxuraan xam nga da ngay gis léeg-léeg am na ñoo xam ne dañuy xir xir goo xam ne mën nañoo jël dara sax remplacer ko alxuraan ndax loola xëy na jami def ci ñoom waaye alxuraan dara mënu koo remplacer remplacer moo tax sëñ bi wax ne quraana ahmada la abri bihi badala alxuraan yi nga xam ne mën a wàcc Seydina Muhammad kat du ma ko jëm wàccandikoog lenn bihi aqudu ila rabbil wara ulama ci moom sax waxu ci lay womate ñi réer de ñi am xam-xam dëgg ci laa leen wommatee jëme leen ci yàlla loolu xam nga bu ko seetoon day bari lool euh, li ma la ci mën a misaal ci lool rek bari na lool fi mu toll nii naar yi yi daan ñëw ci sëriñ bi daan nañ junj sëñ bi ci alquran waaye saaj bu ñëwee rek sëñ bi ci alquran la leen di tontu naar bi nga xamante ne bii ne moom moo ñëwoon di ko won ni ñi julliwute xëy na yooyu di ko junj ci alquran dani ma salakakum fi saqara xaalu la naku min al musallina xaalu lam naku min al musallina naar ba daf ne sax fa waylun lil musallina moom la njëkk a wax mbugal la ñeena way julli yi waaw xaalu lam naku min al musallina moom la moom la naar ba wax maa salakum fi sax xaalu lam mu min al musallina moom la naar ba di juñ ñu julli sëñ bi toll ko tontu ko ne ko fa waylun lil musallina mbugal ñeena ñuy julli allazina hum fi salaatihim saahuuna nga gis na fi nga waxee ci alquran rek alquran la ko sëñ bi tontuwaat نار بي نيوان دون لاج سيغ بي تا خاوا ياكامتي القران لاكو دون جونجو ناخ دافا واخ سيغ بي نكو ان هؤلاء يحبون العاجله ني دي دانيو خاوا ياكامتي لو غاو لن بغ سيغ بي تانتا نكو مان كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء تي القران لاكو تونتو وات نكو كو خان دا بغ لو غاو دي دا ياكامتي دي ñu daal di koy eh, eh, defal nu mu gën a gaawee rek lépp mi ngi ci biir alquran nga xam ne ci alquran bii aquur ila rabbil wara ulama loolu da koy wane ba léegi moo tax euh, yooyu yëpp mu jàppoon alquran moo tax sëñ bi fayee ko ko suñ borom subhanahu wa taala fayee ko ko loolu yi dana ci ñëw ba léegi nga xam ne dundam gépp itam mu ngi sell ci alquranu karim alquran ci la dundam selle dana wax naa safat xayaati bi kitaabillahi wala su kan lahu wallahi giñ ne maanaam du ma sa bàyyi alquran xam nga sëñ Tuubaa moom bu na ci ba ñu ci foor gi alxuraan foor ci moom ak fa mu na mu kawe moo tax mu giñ ne du ma mas a bàyyi alxuraan yàlla ji sama dund gépp ci alxuraan la sell te daa wax ne man làq naa dund goo xam ne keneen ku dul man làq ko xusta xayaatan laa tura li xayri mojisatan baana li usni xayri am naa dund goo xam ne dund gu sell goo xamante ne bii ne keneen ku dul man amu ko mojisatan baana li usni xayri noonu kimtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga loolu yi dara gënu moo tax mu daan ne sa fat xayaate bi kitaabillahi sama dund mi ngi sell ci téereb yàlla bi yéegi ci sax ne inni la atruku dikra rabbi li wacil karimi wa wahibbi du ma mas a bàyyi alquran yàlla ji du ma ko mas a bàyyi mukk ndax moom mooy sama xarit yéegi tamit ne ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonent sallallahu alayhi wasallam ci alquran jàng alquran ci laa koy ci laa koy wutee urdi ilahi wa urdi al mustafa bitila watil kitaaba alladi qad jala maanaahu li may gërëm loo yàlla mooy alquran ji ak yenn salaan li ma ko gërëm loo mooy jàng alquran ji ba léegi. dana wax naa ni itam li fekk maa ngi dund alquran dama koy jàng itam ci alquran itam ci laay dàqe iblis saa yu jugee jëm ci man ci alquran laa koy dàqe dana wax naa urattiluhu maa dumtu xayyan wa aktafi wa an fii bihi iblisa matee dabba saa yu dawee jëm si man rek ci alquran laa koy laa koy laa di dàqe nga xam ne yegg na ci. ci jàng alxuraan toll fi moom boo neexi woo xamante ne bii ne jéggi na dayoo nga xam ne wax na ni alxuraan aayaam yi bu koy jàng mooy dàq ci man lem aayaatuhu tam xul wal kasala xawat xustu aaya xawat aaya xalaawatan te fooqul asala làq na neexit woo xam ne kawe sax lem loolu nag ku jàng alxuraan di ko seetantal dëgg-dëgg ak di ca bàyyi xel doo ko mën xam waaye moom mi koy jàng di ko xel di ko seetantal moom koy xam ndax dafa wax ci masaalikul jinaan wa aayatan eh, wa aayatan tudd birat te fooqu xatman eh, nu mu ko waxee noonu ne benn aaya rek nga setantal ko moo kawe fopp nga jàng kaamil ba njeex te setantaloo ko benn aaya nga jàng ko ko moo kawe fopp ëpp yool fopp nga jàng alxuraan ba mu jeex tàkk te setantaloo ko kon lool da koy wane ba léegi waaye noonu la dem doon soññee murid yi itam ci jàng alxuraan da leen daan soññ bu baax daraan wax naan képp koo xam ne bëgg nga ngërëmal yàlla sun borom na ngay saxal di setantal alquran wa man yuri rida rahman falyasbitan tadabbaral qur'aani kep ku bëgg ngërëmal yàlla sun borom boko ko de dee al alquran mi ngi ci jinan da lan xam la itam ni jang alquran de ngour la da lan xam ne jàng alquran tamit manam day muccal nit inna tilaawatal Kitab mulk wa huwa liman yaqin najata fulk jang alquran ngour la tay tamit moom mooy li nga xam ne mooy jàllale masala nit bu nekkoon ci diggu géej wala ci problème yu mën a doon rek alquran mooy li nga xam ne moo koy ci génn ko ca mara mu ne inna tilaawatal kitaaba mulku wa huwa liman yabqi najaata fulku kon moom loolu la gisoon moo mu yegg ci bu ma saan jàng alquran dënnam xolam day yëg lu neex xolam day yëg ak sedd mara mu ne ida qaratu in qaadatil alaawa likarkali wa taabati tilaawa su ma jàngee rek neex yi dey daal di ñëw sama xol ma yëg ko lool mujj tamit li may jàng neex ci man lool tey ci man lool kon kooku mooy sëriñ bi ak alxuraan mara na suñu borom faye ko ca loo xam ne booy xool faye fayeku fayewu ko kenn ngir bëgg gi ko bëggoon bëgg yi dafa yeggoon ci daaw ko jàng rek yem ci waaye sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana day wax ci Irwa na ne sëñ bi lim daan bin jënd ci ay kaamil rek yoo xamante ne bii ne euh, yun mool la kenn xamul nu mu toll bokkut ak ne li ñuy bind ci kër gi. wax na yegg na ci wax ne sax am na benn bis boo xamante ne bii ne lu toll juróom-ñetti fukk kaamil la jëndandoo ci benn bis benn jataay dafa atan waaxida da ko fayandoo lépp ca sa kaamil yi nu xam nga ak bëgg ko waral bëgg dëgg mooy waral lool nit ki bëggee dara du xool ne am naa ci lu bari am naa lu néew fi mu ñi nga xamante ne bii ne ni ma la ko rek xasida leen bëgg mën ngaa ñu yore lu toll lu toll ne bibliothèque ci xasida waaye du tax ñu doyal bu ñu gisaate yeneen dañ koy jënd foofu waaye tiw suñu borom da koo fayee nag moom rek la suñu borom fayee ci alquran loo xam ne doo ko gis ci kaneen ndax wax na ni sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana moo ko wax nee naan am na kor goo xam ne bi ñu desee ñetti fan sëñ bi daa daal di génn yore kayit yu bari daan ne leen ndax xam ngeen li ma bëgg ci kayit yi ñu ne ko a ah, Mbàkke de boo ñu ko baaxee woon jël mu ne ne ab kaamil de laa ci bëgg tey tamit bu ne weeru feeñ na mukk te néew leen ma kaamil baa ngi nii sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana nee na ñu daal di jël kayit ya séddoo ko ñii di bind par ñaari isib bu ñuy bindee ñaari isib ñii ñëw maas ñii di ñii di ñii di maas ñii di topp neena noon noonu ko defee ca bisu fukk fan ak juróom-ñeent ba ci la ñëw jébbal ko ko nee na amu ci kenn koo xam ne mbindam moo gën a rëy mbind ki ci des amu ci kenn koo xam ne mbindam moo gën a sew mbindam ki ci des lépp dafa tolloo loolu kimtaanu yàlla dëgg goo xam ne defal nag ko sëñ bi téye ko ne leen ndax mas ngeen a gis ba dina sobalee ku am lii mas ngeen koo gis ñu ne ko déedéet mu daal ne la inni laa udiyu amala duma sang sànq kenn ci jëfi jëfi yéen yeen duma ci sang kenn ci ay jëfam loolu di loo xamante bi sun borom da ko fayé da bok ci loon sun da sun borom fayé itam ba légui ay nim ko daan firé da ko yombon lool da ko yombon lool nga xam ben ay bu la ko tafsiralee rek day daal di lér lool sa bop nga xam ay yu bari bu ko bu ko tafsiré ni muy gàtt ak ni muy tënkoon ni ngay déggé maanaam di ci fekk tay ji bo bëggoon jël ab tafsir rek diko lire loolu it du ko ci fekk loolu buñ ci duggoon day gën a xóot waaye loolu tamit may la goo xam ne suñu borom defal na ko yéeg na ci may yi tamit ne suñu borom moom loo na ma alquran moom loo na ma alquran malaktani qurana wal uluma nafaata bil nafaata bil jahula wal uluma suñu borom moom loo na ma alquran te it ci laay jaraña ñi nga xamante ne benn ñoom ñoo réer ci laay jaraña ñi nga xamante ne benn tamit ñoo am xam-xam dëgg-dëgg fi ko alquran tolloon itam yegg na ci ngir xam ne ngir xam fi ko alxuraan tolloon rek xam naa ne man na maa tëje foofu sax muy ñi daan jàngal alxuraan yemale wu leen ak lenn am na koo xam ne boo demee ci téere alxaaji Mbàkke boobu mi ngi ci suñu alxaaji Mbàkke boobu wax na ne kooku ab jàngalekatu alxuraan la woon ñu ko dema siyaare ji sëriñ bi sëriñ Tuuba boo ko siyaare jee day da nga xam ne mooy borom alxuraan te it ku bëgg alxuraan la naka la dem siyaare ji sëñ bi sëñ bi daal di summi mbubbam jox ko ne ko jox ma sa mbubb ne ko nag teg ca ne ko ku yéen jaraluma ko ku dul yéen ñiy jàngale alxuraan rek jaraluma ko moo tax ñi xam ne ñoo toog tuubaa di jàngale alxuraan sëñ bi tamit nee na dañ leen defal lu kawe seen njort ñoom it ñoo leen moo leen di wuutu tamit ci seen wàllu dund ak seen lépp moo leen ciy wuutu ngir bëgg nga xam ne bëggoon na ko alxuraan kon sëñ bi buñ fa doon toog di waxtaanee wàllu lu jëm ci wàllu alxuraan ak digganteem ak bëggeeg njëriñ ko ci seen borom defal ak lépp eh, yaakaar naa ne fi la fanaan sëñ Bakke Euh, kon ñu ngi jégalu bu baax a baax ci euh, kàddu gi jërëjëf. Euh, jërëjëf sëñ Matar wax dëgg yàlla wax nga la am solo ci diggéen suñu Tuubaa alxuraan wax dëgg yàlla indi nga ci ay leer yu am solo tamit daanaka suñu Tuubaa moom ni mu mel alxuraan dafa yéeme daanaka daf ko doon défendre défendre yu yéeme ndax bokk na ci li wax ne rek inna tilaawatal kitaabi sarafat li xayri durée daa fan sarafat ba tey ci jagle yooyu gis nañ ku mel ne si Abdoulaye Mbacke waxtaanam boobu mu doon waxtaan. doon wax ne am na ku ñëw indi ko kaamil alxuraan nee na bi ko sëñ bi xoolee daf na ko rek bu dul sàddeek nga fàtte ca fa xan kas sabtum rek kon day daal di wow koŋŋ waaye nee na bañ ko ubbee <laughs> noonu ma ko waxee noonu la demee kon loolu ba tey kon day mel ne kon ci jagle sëriñ bi la bokkoon ba tey ci yi nga xam ne am na ko diggam alxuraanu karim waaw wax dëgg yàlla kon xam naa ne kon ñu bàyyi kon ci tomb boobu xëy na kon sa kàddu yu mujj rek bala ñu dem ci beneen bi nga xam ne ci lañ jëm incha allah muy sëriñ Tuubaa ak sant ndax ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa moom tomb boo mën mën di jël ci moom daanaka euh, mënoo cee waxtaan waxtaan ba matal ko xanaa kay dañ koy tënk rek ndax sëñ bi jëmmam la suñu borom tollal noonu daanaka mbiram moo ci jël rek waxtaan ak ba mu jeex tàkk moom day daal di jafe loolu sax bu neen sax lu jomb la ñu lu jomb la naa ne kon sa kàddu yi mujj mata comme ça ñu tëj foofu mën a ne mooy diggante sëriñ bi ak sant incha allah. jërëjëf sëñ Mbacke noonu nga ko waxee moom borom alquran noonu nga ko waxee ci sëñ Abdou Lahad loolu li ko waral mooy araf woo gis rek nee na su ma ko bindee wala ma jàng ko xéewal ga nekk ci araf boobu sunu borom dama koy daal di dénk ida katabtu aw qaratu xarfa xusumu nan tuudaw daaka la xarfa araf nga xamante ne bi nag xéewal yooyu moom la ko sunu borom dénk koy daal di defal ma waral mu tolloon foofu ci alquran nga xam ne eh, boo ko joxee ab kaamil moom ñaareel boo ko masaan jox da koy téye de da koy téye daal di wax ne alkitaabu alladi laa yaati l baatilu min walla yadee wala min xalfi li mooy teer bi nga xam ne nen caaxaan du ko jëlee du ko du ko du ko jaare ginnaaw du ko jaare kanam foofu la ko tolloon ay loxoom yi ni mu ci daan nangoo du dara lu dul alxuraan ñaari loxoom leneen loo ko jox rek mën na koo teg noonu wala nga ñëw teg ko noonu dem sa yoon waaye alxuraan rek moom mooy li nga xam ne moom daan jële ci ay loxoom yeggoon na ca sax koo xamante ne bii xam def nga xëy na def nga loo xam ni Ah, ah sëriñ bi mere na la ci nga bëgg a dellusiwaat dëgg-dëgg na koy de da ngay jaare ba mën a dellusiwaat mooy da ngay bindub kaamil indi jox ko ndax sopp gi mu soppan alxuraan kon daal euh, sëriñ baa nga alxuraan may sañ taxaw buñ ci doon wax fii ba suba duñ fi jógee jërëjëf sëñ Ba ñu xaar beneen tomb bi jërëjëf jërëjëf. mel na ko ñoo ngi toog ba tey ak sëriñ Makhtar Seye ñu am yéene waxtaan ak moom ci diggante sëñ Touba ak sant sant nag bu ñu xoolee dafay mel ne dafa doon benn pàcc ci. Euh, diine bu ñu waxee diine nag mooy diine lislaam ndax ku wax sëñ Tuubaa wax sant dana doon loo xam ne lu yellu la ak lu xel nangu ndax sëñ Tuubaa li nga xam ne ci ay mbindam jagleel na ko sant rek kenn mënu koo waxtaane ba mu jeex tàkk tey bu ñu benn rek doon na doy sëkk rek mooy li nga xam ne moom la wax màggalu Tuubaa boo xoolee sëñ Tuubaa bi nga xam ne mi ngi koy santaane dafa wax ne sant gi nga bëgg sant suñu borom subhaanahu wa taala dama cee lottu wala dama cee néew doole maa ngi sàkk koo xam ne sama mbégte sa mbégte la saa yu bis bi ñëwatee nga sant suñu borom bu ko ci mbindam tamit dana wax ne maa ngi sant suñu borom bu baax a baax li nga xam ne rafetal ne ko sama ay mbir ba pareet euh, lu mel ne xasida yu bëri nga gis lu ci bëri baatu sant da ngay commencé néew na xasida gooy dugg ba mu jeex te suñu tuwaa tudd sant bu ko ubbeewu tamit boo xool lu mel ne jës bu xulóob mi ngi commencé ci alhamdulilah aqil mu biin man kaw noolu yee ba bana ab yaat yee jeexee boo xool lu mel ne man la foo si nga xam ne moom nga ni mu ko commencé waaw yooyu yëpp day wane rek ay ak ak cant goo xam ne fees na ci jëmmam moom Seexul Xadim xëy na sax bu ne ba ci biir euh, jataay bi incha allah dina gën a leer baax a baax a baax kon simetaar dañ lay jox kon kàddu nuyoo bi nga boole kon ak dugg ci point yooyu nga xam ne moom lañu am pas-pas waxtaane ko ak mbokk ñu ñu bàyyi ko ci àddina bi yëpp muy diggante Sëñ Tuubaa ak sant Sëñ Matar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax di la delloo ab nuyoo di la ziara di mbokk yi. ñu ngi ko waxee kon mu mel ne ñaareelu tomb bi moom mooy Serigne Touba ak sant sant nag Serigne Touba da cee toll ci ba boo xam ni ba la boo xam ne moom la ba Bassirou di woowee euh, ñi nga xam ne ñoo sopp yàlla dëgg ñoom ñoo yegg ci maqaamaatu sukri maqaama boobu nag sëriñ bi dafay yegg ci ak sant maqaama boobu Serigne bi dafa yegg ci sant boo demee ci mi nanu baaxil xadim sëriñ Basiiru dina ko koy wax nee na gaa yi nga xam ne ñoo bëgg yàlla dégg dëgg bari ko sant maqaama ban toll maqaama boobu moom mooy maqaamatu shukri kon dañuy gis ne sëñ bi maqaama boobu yegg na fa baax a baax sant nag ndaa bokk ci jaamu yàlla ndari jaamu yàlla ni nga ko waxee léegi borom bi subhaanahu wa taala moom moo digle ngir ñu koy sant daf na la in shakartum la azidanakum saa yu ngeen dee sant rek su borom di leen dolli te bi yemu ci wax sant googu rek wala jëfe ko waaye da ciy daan taalif ay xasida même ñaari baati alquran yi ma la jox rek tënk na ci ak xasida goo xam ne noonu la ko tënkee la in shakartum la asidanakum du benn sax nag ñaar la ba ñett sax su ko defee kon dañuy gis ne moom cant ak jaamu yàlla la li waral muy jaamu yàlla nag jaam bi bu ko yàlla defaree ba noppi benn mu sant wala mu xalab xalab moom mooy euh, moom mooy kufraan suul jëf suul jëf la in shakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la shadid li tax jaam bi war a sant nag mooy bu limoon xéwal yi ko yàlla suñu borom defal yëpp du ko mën a matale wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xéwal yéen yàlla suñu borom defal yëpp yëpp du ngeen ko mën a takk moo tax sëriñ bi itam wàllu sant googu wax na ci bu baax a baax xamale ne ne itam dëgg-dëgg sant suñ ko waxee moom mooy nga seede ak waxtaane xéewal yi nga xam ne sunu borom defal na la ko moo tax wax na ci masaalu ko jinaan ni xaqiqatu shukri la daaman alima shuhuduna min si jilaali niama dëgg-dëgg sant kat ni ñu ko waxee mooy xéewal yi la suñu yàlla sunu borom defal nga di ko seede ak di ko waxtaane foo toll moo tax keroog ba muy taalif xasiid ak lu mel ne adaayiqul fadaayil dafa wax ne aqulu daa taxaddusin bi niami damay maa ngi wax waaye li ma tax di wax mooy di waxtaane xéewal yi nga xam ne moom la ma sunu borom defal te borom bi subhanahu wa taala dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa amma bi ni'mati rabbika fa xadis xéwal yi yàlla suñu borom di defal doo ko waxtaanee moo tax sëñ ba muy tàmbali dafa wax ne aqulu daa taxadduthin bi ni'ami damay wax waaye li ma tax di wax rek mooy waxtaanee xéwal yi nga xam ne yàlla suñu borom defal na ma ko. nit ki nag bu xoolee léppam sant la war a doon ndax léeg-léeg nit bëgg dara te fekk la muy bëgg gënu ca moom suñu borom du ko jox léeg-léeg nit suñu borom teg ko nattu la tax mu di ko teg nattu it mooy euh, yëkkati ay maqaamam moo tax gis nga sëriñ bi ci biir natt yi nga xam ne am na ko ci géej gi xorandoo barab barab yi nga xam ne nekkoon na fa rek ba barab ba mel ne xëy na lu ko xaw a soof te ni mu ko nettalee moom xaw lu xaw a naqari ci bakkanam su borom yebal ay xorandong yu yu mag ndeysaan ñëw solo ci yaramam wi keroog ba ca jógee la mu wax mooy nasaxtu bi shukri shikaayatan fala askoloho durri durri afala tey day jël naa ak sant muur ko ci kaw njàmbat muur ko ci kaw njàmbat dutuma jàmbatati mukk lu mu mën a dal rek dama koy sant yàlla moo tax lu ko masaana mën a dal rek da koy sant yàlla keroog bi nga xamante jógee na ci dikk bi it bi mu dellusiwaatee bi ñu ñëwee kërug daara mën naan googu ba muy lakk ba muy lakk booba da koo daal di santewaat yàlla wax ne bu ci mën ci génne dara bu ci kenn dem daa bàyyi lépp lakk ba jeex tàkk loolu mooy ak sant dëgg-dëgg góoy yëg sa xol dama laa wax léegi sëñ bi maqaamam sant yàlla dëgg da caa yegoon ndax dafa wax ni ashkuru bii na maa maa ngi koy sant comme ñi nga xam ne ñi nga ñoo bëgg yàlla dëgg-dëgg noonu lañ koy sante wa bin nabi naa yamunaaya jamaa loolu mooy maqaamatu sukri dëgg-dëgg ah dara wax tamit ni maa ngi sant yàlla comme ñi nga xam ne dañoo dem naan ca Kawsara ban teg leen ci àjjana ñu war a dugg fan toll ci xéewalu yàlla fan toll ci xéewalu sunu borom bi ak màggam gi ba ko sant nee na foofu laa toll ci sant yàlla sunu borom ashkuruhu shukra alladina sharibu min adabihi walil jinaani quribu loolu day wane ni kon kooku tolloo na fa kawee ci sant moo tax gis nga natt yi ko sunu borom teg yëpp li ci gën a yéeme mooy bi muy sant yàlla waxut bis bi ñibbisee ci géej gi waaye bis bi natt yi tàmbalee moom la wax ne euh, nañ ko ci sant la yàlla muy bis boobee nga xam ne mooy bisu màggalu Tuuba tey tamit sant li ci gën kawe mooy li ngay sant fés li ngay sant wane ko ndax borom bi daa wax ne i'malu ala daawooda shukran jëfal leen ñooñ daawooda ak sant liggéey jëfal leen ñooñ daawooda ak sant ah, ak sant defal leen dara ngir sant ko yàlla moo tax sëriñ bi nag ah, woote bis boobu yi ngir di ko sant yàlla di ci gën a yéeme mooy xeebuma ci ginaar nawuma ci giléem loolu yi lu ci gën a lu ci lu ci yéeme la itam ah, ci biir sant gi nga xamante ne bii ne mi ngi koy sant yàlla sunu borom loolu yi dee moom it ak sant rek moo ko ñoroon ba ci aaya bi nga xamante ne bii ne moom la sunu boroom euh, doon wax euh, te Suleymaan doon ko wax rabbi awzi'ni neex ma ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya aaya ba bi nga xam ne day wane ak sant dëgg ndax Suleymaan dafa dem ba yëg ne war naa sant yàlla ndax ba demee ba njanaaw yi di wax moom lu wax mu xam ko ah, di wax ak yi ah ci la daal nag yàlla yàlla nag ma yënkiwal nag ma lay sant sa yi loolu it bi da koo jël taalif ci xasida muy rumna rumna boo gisee loolu lañ ko loolu lañ ko tënki rumna shukur alladi bil kaafi wan nuuni macha a yafaalu min baadi wa maknuuni te rumna daa bokk ci xasida yi nga xam ne bu ko sëñ bi tënkee loolu ngir sant rek dañuy gis ne ku mën sant yàllaa ngi ndax loolu ci géej gi la fekk muy natt yu met te teew dafa jël bayit yooyu aaya boobu nga xam ne Souleymane moom la doon wax bi nga xamee ne yëg na yàlla ci jëmmam ji moom la doon wax muy rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya te yàlla ci xasida muy rum naa sukkoor la ci biir kaaf wan noonu kon sëñ bi ak sant dañuy gis ne bu ñu ko doon waxtaanee fii ba suba moom it du jeex nga xam ne moom léppam ak sant yàlla la boo demee ci nooru daara yi ni gis nga ni mu ko waxee sakartu ko laawma bi siyaam sakartu ko laawma bi salaat sakartu ko laawma bil xiyaami sakartu ko laawma bil xilaami lépp da ci sant yàlla yëgg sax ci ni yëngutu gi muy yëngutu ak dalam lépp ak sant yàlla la hmm? kon dañuy gis ne kooku euh, léppam sant yàlla la amul amul amul dara loo xam ne rek maanaam dana koy def wala muy yëngatu wala muy jug rek wala muy toog te du ko sant yàlla lépp rek sant yàlla la koy def moo tax euh, buñ da waxtaanee sëñ bi ak sant fi la ñuy fanaan kon daanaka mën nañ koo tënk noonu rek yàlla nu yàgg yàlla gën a déggloo sëñ bi ñu gën di nangoo sant ñun tamit barke sëriñ bi jërëjëf sëñ Mbacke. Euh, jërëjëf si Matar wax nga lu solo ba tey waaye bu ñu xoolee ba tey ci biir sant gi dafay mel ne sëñ bi am na foo xam ne. Euh, ni mu bëggee liggéeyam bi di ko doxee saa su nekk maanaam muy muy muy muy nekk bu ma nee mu jaddit nag jëmmi sëñ bi la waaye ci biir liggéeyam bëgg nañoo saa su ne dañ koy yeesal masalan ay ndaw dafa mel ne ko kon sant na suñu borom baax ndax boo xoolee mel ne xas de wakaan àqan ngi wax naan askuruhu wa xaadi abdallah kama kafaana arba wal judala mel na kon loolu tamit naka nga ñu ko mën a mën a mën a mën a mën a mën a leerale la ci biir sant nga xam señ bi mu ngi koy sant kon waaye ci ab yaat boobu jërëjëf sëñ ni nga ab bu am solo ab daal daa doon ci martabay jaamukati yàlla yi ab daal daa bokk ci martabay jaamukati yàlla yi dégg dëgg dëgg ashkuruhu waqaadali ab daala maa ngi sant yàlla ndax moom kan mooma xëccal ay ab daal kama kafaani la xarba wal wax na ne ca Mauritanie am na ko fa jote woon ak benn naar naar ba nag daa bokk ci ab abdaal yi te kooku xamu ko waaye sëñ bi daa wax kooku ne ko na ko dem wëri ko ba gis ko jégalu ko ci tënku xissa sabi rek pour wax la ne la sëñ bi ni ko suñu borom joxe ay abdaal boo déggee maanaam askuru waxaadale abdaal maa ngi sant suñu borom mi nga xamante ne bii ne moom moo ma jox ay ab daal dafa bokk ci martabay jaam te yàlla dafa bokk ci bay yi martaba yi nga xam ne ñooy jaamu yàlla dëgg-dëgg ba yegg fa sëñ bi nag suñu borom ni mu ko joxee ñaneen ñi noonu la ko joxee ay abdaal ba léegi non la ko joxe abdal abdal moy ko xamanteni bi dafa toll ci martaba ci martaba la ci maqaama yi ci la bokk mo tax mu ne ko ashkuruhu wa khadil al abdala kama kafani al harba wal jidala yakana mi ci ajabani sa ajabani xayru baqin fi qattaba kulli waraqa bima li ma lii xaada dafa am abdal am kulli waraqa bima li qad lii xaada dafa am abdal am yoy ci ay martaba jam yàlla toll la bokk te sëñ bi dafa bokk ci nga sun borom dok koo joxoon moo tax ci sante yàlla bu wér wér waaw kon bayt woowu daanaka lool mooy tënk bi sëñ Mbacke jërëjëf jërëjëf. ak sa jërëjëf sëñ Matar kon mel na xam naa ne jataay bi moom liñ ci bëgg a indi lépp mel na ne waxtu wi da ko dul maye waaye xëy na jombul incha allah danañu amaa yenn yeneen jotaay yoo xam ne day jëm si mbir yi ak sax yeneen mbir yoo xam ne dafay aju ci liggéey sëriñ bi incha allah taala kon mbokk yi kon ñoo ngi sant baax di yen gërëm di leen xamal ne kon ñoo ngi toogoon ak sëriñ Makhtar Seye comme ni ko waxoon yàlla doon jàmbaar doon bëgg xam-xam tamit di gëstu tey ci sëriñ bi te nu waxee sëriñ bi rek mooy lislaam ndax sëriñ mooy lislaam kon xam naa si daal sa kàddu ak muy nga tàggu mbokk ñu ngi ñu bàyyi xel incha allah taala. waaw ah, jërëjëf sëñ Mbacke ah, ni nga ko waxee léegi ah, ñu ngi santaat yàlla bu baax ñun tamit ñu ngi koy santaat bu baax ci bu ñu defee njëkk ñu doonub jullit doon mu'min doon muslim yàlla ñu def nañu yéeg ci martabam ihsaan dëgg-dëgg. waye ñi santaat yàlla bu baax boole gi ñu boole ci cheikhul qadim ñu and ak mom di ko nju yàlla na yàlla defal na ñu gën ko bëgg fuñ tollu waaw yalla ñu yalla defal ñu gën ko bëgg fuñ ñu toll ndax gaay ñi ngi rawé ci martaba yi bëgg sëriñ bi loolu martaba la waaw waaw euh, sëñ ibrahim Dia almasari dara wax naan sama secret deug deug deug mom moy bëgg sëriñ Touba waaw sama wirdi it bëgg sëriñ Touba waaw mahabatu cheikh al xadimi wirdi wala daa sul arsi xayru wirdi noonu la ko waxee ma jëmu ci bayit yi nga xam ne kon bëgg sëñ bi rek am solo yàlla na suñu borom gën a def ñu gën koo bëgg seeram fa lim amee lépp ci bëgg sëriñ bi la ko amee yàlla na yàlla def lépp di ay ngërëm yàlla na yàlla def sëñ bi gërëm lépp musul ci ndog in uridu illa al islam masarra ma tawfiq illa billah ya rabbi ja'al muridina ma fi isnikal hasin wa shamlaj ma malik jami'un fusum bila shay'in yadur wal masa yaqbala ighfir li kulli man illa yamala wa ayyada illa rasah mala jërëjëf sëñ Mbacke amin ya rabbal alamin ci ñaan yoyu amin ya rabbal alamin barke cheikh khadim kon mbokk yi kon ñoo ngi sant baax di leen gëreem xamna kon di leen joxaat kon dig dajé kon feek ci kanam tout inshallah ci biir bis bi nga xamne ne lay waxon sank muy bis bi nga xamne ne ahlu jalibatu maraqib Touba France fi ci Paris ñokay amal at bu jot yalla def ren di juroomi la ñu amal ci ndigalu si Amsatu Mbàkke mom Serigne soye bu waaye la ci ndigalu Serigne Mountakha Ibnu Cheikh Ahmadou fi nekkal cheikh khadim kon ñoo ngi sant ñep di leen kon di leen jox kon dig ci ci allah wa salaamu alaykum wa rahmatulah jeer ngeen jëf